jox Serigne Moustapha Diop kokki moom it mu indi ay leeralam ci waxtaan wi di ñaan suñu borom mu defal ñu ci rek ak dégg ku topp.
asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. fattaahu wahaabu yaa rasaaqu yaa maliki liftah wahab liya warsuqni bi kunil ana dayqi azil aajilan bil bushri mamadajin xataa uqiima li diinillahi arkaana yasiru juuci li tuuba waxmini waqini adal wara waltujib di sama iskaana laka samaa wal araadi wal hawaa bila musharikin liw mashikhu bana ajib wa salli bi taslimin ala sanadi muhammadin wal tafil fahma assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi ngi nuyu ñëpp xam naa kon di di ko dale ci sëñ Moustapha Moussa nga xam ne kon buñ ko buñ ko tuddee rek kon moom ci ëtt biñ nekk biñ nekk kon matériel xam naa di nuyu kon sëñ sëñ Mbakke mi nga xam ne moo doon def waxtaan bi am na solo lool ak nag commentaire yi sëñ modérateur bi ni mu ko modéré am am na solo lool sëñ Alaaji Ñaay Cheikh Cheikh Ndindi moom maanaa nettaleem yooyu ci suñu tubaab moom duutoon moom di yàlla xam naa moom yéen sax yéen war ngeen cee liggéey ci ab liggéey jegee ko moo wax leen lam ca lam ca xam lépp ngeen bind ko ci tubaab yaakaar naa loolu kon dan na am solo lool xam naa mel na ne ne gaa yi ndar képp nañu waxtaan wi xam naa dama bëggoon a jëkkee li li li sëñ Seexu naa waxoon ci sëñ Mad Lamin Jóob lu ko may loola ni kan loolee wax nañ ma ne ma ci ay ay ay waa këram nee ñu ca mujj ga la ba màggal see ba ba ba mu delloo njariñ lépp ma ngay wax naan gaa yi ku ko nuyu rek mu ne laa ku la gis day laaj la Mad Lamin ne ko Mad Lamin day ma nga ca niyatul xayri wa xawlul xayri wa fi'lul xayri yéene yiw waxu yiw jëf fu yiw nga xamante ne li mujj dénkaane ku ko ku ko nuyu rek mu ne la kat koo gis mu laaj ma rek wax ko lool kon daa mel ne kon li sëñ bi doon wax kon la ko may loola xanaa ne loolu la mujj ci wax mbooloo ma te bokk na ci la ko may wax yéene jàgg wax jàgg jëf ja ci mujj gi moom sëñ Mad Lamin Jóob bis bu mujj bi daa woo jigéen ñi ne leen seetal leen ma bori bori cin yi ñaata la boobu juróom benn fukki dërëm la am ci xaalis daa ne seetal leen ma ci bori cin yi nee ñu ñu ne ko fanweer la de mu ne am kon fay leen ko te te bu leen jëlee ni dara nag ci son tur si ngeen de bor bi ni ni ni fonk bor bi daal la ca des mu joxe ko mu des fukki dërëm ak juróom mu ne nañ ko ca toggal ab laax loolu la mujj mos ci kaw suuf kon sell gi sell gi jëf la xam nga yéen a ngi wax gi ak jëf gi nag jëf gi maanaam léegi bor xam nga ci conti gaay ci saatu salaam am na saxaabi boo boo xamante ne yaakaar naa mooy borom bor ba ci Abdurahmaan ndaw fi lay su su ma jumul suma su ma kii ci ngeen leeral ma ko ba moo faatoo ca xare ba te Seydina Jibril ñëw ci moom ne ko moom day dafa am bor fayal ko ko ku faatu ci xare dafa am bor ci centi bi ay saatu bu salaam it ñu ne su ma saa tiim néew dana ne ndax amul bor buñ ne waaw mu ne moom kon jullee leen ko ju moom du jullee koom ba ca topp mooy Sëñ Mad Lamin Jóob moomu njëriñ daa ñëw di di jullee am néew sama baay sama rakki baay moom moo ne ne fekke woon na loola keroog bi mu téemee néew bi daal di ne ndax daana julli sama baay boobu nee nee na ma sëñ baara ñi ngi fii nee na kenn ca ca mujjug mbooloo ma daal di ne nee leen ko daana julli mu ne nun kat sañu ñoo jullee ku daawul julli ma ma ne loolu ak a baaxoon loolu mu saxoon ci armeel yi ku ñu jullee ki ku nekk laaj ba xam daana julli buñ ne bu buñ ne du julli ñu na Sëñ Mad Lamin Jóob dañu nee woon na moom ma jege woon ko ku baax ka suñu ñëw jullee ku ku daaw wul julli ndax loolu kon du du am efficacité yaa na ko de xanaa léegi ku am borom kenn du la jullee maanaam sëñ bi du la jullee moom maanaam ku dul julli sëñ bi du la du la jullee yaakaar naa yaakaar naa dund kooku xam nga sëñ El Hadj Ndiaye wax na ko sëñ sëñ Moustapha maanaam sëriñ si la xam nga nag digal sëriñ si la. maanaam gidd gi gidd gidd njiit li nga xam ne yonte bi ba ay salaatu wasalaam da da dara wax naan may fi réew li li kat ba kon foofu fu mu jaar ñu ñu aw fa maanaam mas naa fekk fii ci armeel yi ab sëriñ boo xam ne ci yaakaar yi la man ci sama yaakaar yi la bokkoon waaye man ëpp damay critiquer man damay seet damay maanaam damay vérifier dëgg yëf yi sëñ bi ñu ñu indi néew bi sëñ bi ñëw daal di taxaw ci kaw ay dàllam tiim néew bi ma sëgg man ma ma sëgg xool ba xam ma gis sama gis ma taxaw ci ci ci kaw dàll yi ma xool ba xam lu ko lu ko waral tànk yi niin bat waaye kaw kaw dëgg la tànk yi lu muy niin dafa niin dafa niin ba mënu koo teg ci kaw suuf teg ci teg ci tànkam yi teg ko ci kaw ay dàll tiim ab néew ah kooku si sëñ bi nga nga xam ne man keroog maanaam serol ji man léegi ndax dama ne nag adduna ku ku ma ko gën a bëgg lu sa kaala réy réy ma xam ne doo kenn ndax man adduna xam naa ne du dara man wér na ma ci dem naa ci armeel yi sëñ sëñ lëminum sëñ Murtala keroog ba ba ba mu nelawee foofee ñu ko denc maa nga fa sëñ Alaaji Jibaara ci rahimullah ma nga fa sëñ Muntaxa ma nga fa sëñ Maamoor ma nga fa ak sëñ Abdul Hakim ñu ngi te biir foofee bu ko boobee ñuy indi suuf suuf su barkeelu su suuf suñ def ak ñaan bañ ñu ko nii ki genn kilifa xam ne mi mi ngi woon ci ci bunt bi suuf si tóoru ci ci kaw lafu bi mu ne accam waaye lii nag si seeb la ki dañu ko xucc xool sa moroom sëñ limin sëñ Murtala mi ngi tëdd nii moom ci ci kuusu bàmmeel bi jëm ci suuf si yow suuf laal la kese mun a komuñ xam nga xutwa xutwa xutwa xutwa xasana ruyteem maanaam murit gi xaw ma seen demal waaye murit gi moom crise bi ñu am mooy dañoo am ruyteem ruyteem lañ amutee dëgg yàlla maanaam ku mel ne man damay critiquer yëf yi damay seet ndax dama ne man de su ma biroon ne sëñ Bamba mii wérut kon ma gën ci man su ma biroon laa su ma biroon ne ne wérut man am naa fullay su ma gisee ne wérut dama ciy génn man waaye royteef moo amut xam nga tey sëñ seex ma tëlé tey rahimahullah tum naa rahimahullah ji noonu noonu la xasaali ca wax di xasaali ne woon na nañ koy wax lu tax ñu jagleel ko keneen ka moom mii ayadahullah boo ne ko su xool ko maanaam sam xel dem ci yàlla waaye ëkk néew boo doon wër fii di wër siyaare ji ba ca sëñ seex ma tëlé yaakaar naa moom dong ngay gis jumbul am xelab jëmm ji fàttale la sunu borom kon yaakaar naa ku ci ci kon nun crise bi ci nun la léegi bu ñu dee wax nag ci ci ci mbirum werd yi maanaam lu tax lu tax ñennat ñi waa kër Baye Niass yi ñi ngi ñi ngi fii ci dëkk bi di woote di joxe ay werd am na nag école fii ba daara joo xam ne dañ ko fay tëral indi fi ay américain sama benn bàyyi fa nekk yor ko ma laaj ko mu ne ma day am na ci ñoo xamante ne day kawalax lañ jóge woon waaye mu ne ma boo tuddee bu ñu tuddee Baye Niass maanaam dañuy tàng jër maanaam ñëw si loolu bu ñu dee wax ba tudd ko dañuy tàng jër xam ne day ñu am xaal mu ne ma bi ñu fi nekk ba jàgg jóge nañ fi dem nañ kawalax ma ne ko sëñ bi yéen da ngeen a mëtaguta samp daara jooju xam nga tasawuf mystique tasawuf du julli képp du woor képp tasawuf mooy koo xamante ne dalay jox xaal ngay xam dara tasawuf mooy luy joxe luy tax xam dara ci yàlla tasawuf du du joxe addiya tasawuf du du raam du tëdd fi suuf tasawuf mooy laabal xol kookee bu demee ci foofee ca Baay Ñas ñu jox ko ay tur tur ya mu jox ko ko mu am ay bis yëg dara yëg yëg ne moom kat Paul moomee mu doonoon démb doonu ko tey ah li ma doon jàng ci firi de mooy lii maa li doon soppi ku naa nun nag da da ngay raam ba sonn misaal am na koo xam ne waa joo xam ne ma nga kaw la fi ñu toll nii doomi sëñ Bamba moo ko tërbiya ba mu wàcc ma nga ma nga kaw la ma ne xam nga lu ko waral la bu bu bu bu dee root di root di root ba nga ne ko sëñ bi am jërëjëf ñaanal ko mu xool xool yi gisu ci mu boppam dara si sëñ bi kooku kooku kooku problème la de problème la maanaam léegi maanaam tasawuf ji ci boppam dara la wér de la si si si lam jum nee na ci irwa u nadim si tuwaa mi ngi daa tërbiyaa ci jàng alxuraan ak sikkar ak jàng xasida ak liggéey ñeent yii nee na la si tuwaa da daa tërbiyaa boo dee jàng xasida jàng alxuraan di sikkar da ngay yëg dara maanaam maanaam ñi nga xam ne ñi ñi ngi def loolu wuute nañ ak ñi ko deful waaye nag suñu muri toog léegi ji li tax rax ji bari ak woote tekat yi bari ko ñi ñaan yàlla la la la yàlla mooy ne si si li sëñ ab sëñ Mbakke waxoon ne ne mar gi dañoo mar widd gi am xamaa lu wax jum dafa mel ni fi mu gën a jëme mooy sëñ Moustapha ñoom moom sëñ Moussa ñoom daa mel daal nun daal gag bi foofu la noonu nun danoo gag fi ñu fi ñu gagee mooy nun danoo widd te faw ñu ràmpli ñu widd nañ te faw ñu ñu rampale ñu yaakaar naa kon man li may dénkaane ne rek tëje ko mooy xaside yi ñu ngi ko jàng jàng xaside yi sëñ seexu naa junj na ko jàngi nu xaside yi sëñ sa sëñ sëñ saal moom dookaa nee na ma daal ak sëñ Saaliwu nee na ne ko kuy jëfandikoo tur yàlla te amoo ca ndigal ak ki ki koy jëfandikoo te am ci ndigal nu ñu mel mu ne ko ki ki ki koy indikoo te amu ci ci ndigal du seen pënd ka ko jëfandikoo te am ci ndigal fi mu toll même xaside yi dafa aaje isn waxuma sax xaside yi alxuraan boo demee ca mañ moo ba sëñ Tuubaa bind na leetar maam Cerno bi dam ne ko digal naa la nga nga jàng alxuraan waaye soo koy dee jàng nag lañ ci am dana wuteeg bi ma la ko joxogu ndigal maanaam isn bi isn isn jox naa la isn ci ngay jàng maraaxib loolu du am jox naa la isn ci ngay ci ngay jàng alxuraan loolu du am waaye muskila bi nag mooy problème bi amaat mooy ku la koy jox problème yi daal dafa bari maanaam ku la joxati ku la joxati isn xam naa daal moom moom ginnaaw noonu moom du ñu dëpp du ñu daay léegi daal lay lay kii daal la nga xam ne mën naa mooy solution mooy daal boo dee demee ba mar yàlla ba mar ko ba mar marum xondooñ bul génn këllub si sëñ bambal géttam bii damay wax ne ne gaa yi këll bi lu ci nekkul man suur naa ko maanaam këll bi rek lu ma xool gisuma ci këll bi say bari naqari moo xam ne moo xam neex na lu ma ci gisul dama ko wuti ti feneen asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu
xam naa maa ngi déglu sëñ Cheikhouna benn baat rek bu gàtt lay doon ci xasida yi mu doon wax dafa am léegi jamono it lu ci lu ci lu ci siiw lool lu ci tasaaroo mooy ñaare daayira yu mel nii bari na ci yoo xam ne ni ñu amee kuréeli góor noonu la ñu amee kuréelu jigéen loolu bari na ci te loolu nag njuumte la njuumte la léegi xëy na yenn ci soxna yi mën nañ lay mën nañ lay mere boo booy wax yu mel nii waaye nag du dara lu may bëgg mu dëppoog looy def lu nekk mu dëppoog ni ko sëriñ bi bëggee woon ba biig rek maa ngi ko saraan ci benn télé saxulaa barki biig guddi aljuma ma alxames ci màggalu kenn ci kilifa yi kuréelu xaside yu jigéen ñoom lañ ñoom lañ wone ñoo doon jàng di ko defee nañ ko ne ko góor ñi defee am na ci ñoo xam ne sax dañu àgg ci jànkat bu góor ay jànkat bu jigéen ay awkat yu góor am na yoo xam day fàllan ci digg bi ji góor ñi seex ko am na ci yëpp wuute njuumte la ni ñu koy jàngee man du ma ko jëlee ni ñu koy jàngeeg ni ñu koy fecceeg ni ñu koy ndax loolu lu mat a bàyyi lu mat a bàyyi xel maanaam njàngin wi dafa dafa am aw yoon kenn du seet seet tàmbali ca bopp ba maanaam xasida bu ñuy wax mawaaxibu nga seet seet daan asbil sutóor yi asleh umur yi du ay teggin diggante sëriñ beeg yàlla doo ko defee moom daan daan lewaaju yàlla bismillahi yamuduha i bila manaahi wala intihaay hamdan li rabbi xayram rabbi ba ba àgg ci asbil sutóor yi asleh umur yi mu doog ñëw ñaareel bi mooy dawut baaxulu da ko daan bañ nit nit jàng na benn benn béy lahu lwujudu alladi qad zaanahu qidamun maa albaqaai wa gayru llahi lillahi bayt bi yéem ko mu baa ma ko yoonu ñaareel bi muy bëgg a ñetteel sëriñ bi ne tëll na ko mbaaru dama ci def njuumte la ma bëgg a dégtal mu ne ko mbàkke déedéet mu ne kon jàllal sama xas di peru kurus ñëwee bu daanu ma ngay xaar morom léegi tege mooy ci ñàkk baamu gi mooy boobu ba ki tege mooy des ci dugal lu ci bokkul kooku jàng ne des du ko tudd ndax mën naa mu nekk maami kenn ci ci ci jotaay bi mu mu jàng ba ci yàgg mu ne benn benn bayit mu jàng ko ni cay mbàkki sëriñ tubaa ne ko cay mbàkk ji lu ko ci lu ko ci dugal ciy mbàkke ji lu ko ci dugal mu ne ko xanaa yéem la rek mbàkki mu ne ko sama xasida yi ni nga xam ne ni jër tubaa ngi dara naka noonu jëru dool dara kon loolu am maanaam ni ñuy géewee nga xam ne damay faral di wax ne moom bu dee da ngaa da ngaa bëgg a baal wala nga bëgg a fo moom nga defe ko ci keneen anam moo gën nii ñu koy defe góor ñu góor ñu toilette jigéen ñi toilette ñu jàkkaarloo di tudd di tudd Sëriñ Tuubaa képp doy na doy na doy na doy na tooñ ko waxuma laa na ñu def ab podium maire ba jug ànd ak ay ay ay ay ay membre am di wane ab toilette am di fecc di wër kii géew ba góor ñi di xool seen toilette ñuy di fecc ñuy tudd Sëriñ Tuubaa loolu moom lu ko gën a ñaaw amul ak commandé amaana jigéen ñi jàng ci laa jeexale noonu ñu jéggal ma tuuti ñetti ñetti lay laa ci indi yu leer benn bi ci soxna Bousso Syll laa ko dégg moom Serigne Touba moo ko yar mooy maami Serigne Habibou Serigne Falilou ak Cheikh Bass Abdou Khadir mi moo jur seen wajur wu jigéen soxna si dama ko daan laaj lu bari Serigne Touba ndax moo ko yar dama ko doon laajoon bis njàngum xasida gi mu ne jigéen ñun jigéen ñi ku ci masa mokkal xasida boo ñëwee Serigne bi dalay neexal ma ne ko daan leen ko jàngaloo mu ne daan leen ko jàngaloo ni ñu daan def mooy marax bu dëgër la daan ñëw bu ginnaaw julli gee benn ñu ci ak kees bu sori frank lay won ñu ginnaaw di daaj daaj bi ñu ne ko ma ne ko ngeen di aw mu ne ma déedéet dañuy cellantu ku baax di ko daaj ba ne ndax naa ko ngeen ne da ngeen ko defee nii ma ko mane ñu ne ko fas ko yéene mbàkki mu ne kon bu ma leen wonee ginnaaw ba ngeen noppee dégg sama yuquk tànk ngeen réem ko bu ma leen wonee ginnaaw ba ma nopp ba ngeen noppee dégg seen sama yuquk tànk ngeen réem ko bu ngeen tàmbalee dégg lu bokk ci man yëngu bu bokk ci man bu ngeen ko tàmbalee dégg ngeen cellante lan def kon benn ngi noonu ñaare bi sëriñ Abdul Xaadir ab daayira ñëw na fii boo xam ne ki ko jiite woon xaadim jaarati bi jàng alxuraan ci Dakar dafa werante woon ak ñoom xale jigéen ne ko faaw ñu jàng xasida bi ñu ñëwee fii ñoom ñu incité jàng ba ñu yëkkati jàng sëriñ Abdul Xaadir ne tekk ne ñooñu may dégg du ñuy jigéen ñu naa kay mu ne laggal ne leen ñu noppi bu daganoon ñu noddi ndax ñoo dàq baat góor ñi laggal ni leen ñu noppi bu daganoon ñu noppi nañu dàq baat góor ñi ñetteel ba Serigne Salim nit radiyallahu anhu ajmaïn Serigne Salim nit ñëw na ci moom laaj ko ne ko njàng jigéen ñi jàng xasida ndax ndax dagan na Serigne Salim ne ko ah li nga ci xam ba di ma ko laaj rek laa la ca laa ci xam ne ndax laajoo ma ñooñ góor ñi laajoo ma njàngum góor ñi laajoo ma njàngum góor ñi ci njàng xam nga ne njàngum góor ñi baax na kon yéen ak li nga ci xam ba di ma ko laaj rek laa ci xam kon nag nañu moytu bu baax a wax salaamaaleykum
waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Serigne Alhaaji mel na ni yaakaar naa foofu la ñuy tëjee jataay bi Serigne Moustapha gis ngeen kàddu yu am solo yi mu tënk Serigne Moustapha Diop Kokki gis ngeen kàddu yi mujj tënk rek mooy lu nit mar-mar bu àggoon ci maru xandoo ñit lu mu gisut ci këllub Serigne bi na ko muñ te bu mu ko wuti te xam ne lépp luy lu baax suñu borom jox na ko na jéem a gëstuwaat rek xeexam yoon wu muy jaar ba jot te xam ne Serigne bi ñekkul dara lii si El Hadji defee lu am solo la ndax. yaakaar naa sëriñ bi nii rek la daan jàngalee su toogee ak mag ñi lu mu gis lu ca bokkul mu daal di koy leeral du lu mu gis waaye mu soññaat leen ci fàttali leen ndax dafa yaatu te bari maa ngi koy dee sëriñ Mbàkke mi léegi di ko wax ne alxames bii jàll loolu ñuy wax ngontu maam jaare ca ndar yàlla dogal ñu doon ma def loo waxtaan wi biñ dikkee thème bi ñu doon waxtaan loo ki mujjee jël ki ki ki daaneel kàddoom ñu doog maa jox jigéen la nii mu ko waxee ñu toog di roy Ablaye ñu wër ko di ko aw biñ ma joxee kàddu gi loolu laa ubbee sama kàddu dama ne leen nag am na lu gën a yeey ñu njëlbeenoo ko bala ñu dugg ci thème bi ndax soxna yi ma fekk ñuy jàng lii ñu doon def dafa dëgganu te bokkul ci liggéeyub sëriñ bi nga xam ne léegi kon jamono ju nekk dëgg moom xulil xaq walaw kaana murran wala nga indi yeneen wala tax sufi law matalaim jamono bu nekk rek loolu mooy dëgg dëgg laa biiri daal te yonent bi doon wax ne ad diinu an nasiha nga bañ a denc nit ki dara loo xam ne lu koy lor la lu dul ne wax nga ko ko mu mën koo moytandiku waaye lépp loo xam ne aw la yit nga wax ko ko mu mën koo jariñoo kon lépp luñ gis ci suñu biir rek loo xam ne bokku ci nañ ciy laabirante kon mel na ni liñ doon séentu ci mbokk yi kawe na njortu waxtu wi tiitoon nañ ci waaye nag yaakaar naa ni buñ teeloon a tàmbali it njariñ lu ëpp lii fi rot yaakaaruñ ne daañu ko fi jëlee ndax nafaraat nañ lislaam nafaraat nañ njàngaleem sëriñ bi nafaraat nañ pas-pas nafaraat nañ yu baree bare yoo xam ne daal yàlla nañu yàlla defal ak dégg ku topp